Salut les amis du Patriot Inter, merci encore de la confiance renouvelée les gars, et Welendi abonné, Welendi like. Hein. Ça fait un moment, mais tay gars, on ne peut ne pas parler du match de Idrissa Gana Gueye. Mënuñu bañ wax ci match bi nga xamné, mais match Idrissa Gana Gueye, Idrissa Gana Gueye bi nga xamné, damay def ben rappel bu ndaw. Hein. Idrissa Gueye quand il venait au Paris Saint-Germain, ki nga xamné moy Thomas Tuchel mo bëggoon mu ñëw, ba mu ñëwé gis nañu à la fin euh, dans ko doon jouer le poste, dem nañ ben moment aussi Idrissa Gana Gueye dem ba finale Ligue des Champions daaw, mu tek ko bon, ñu ñëw ren début de saison ñëpp naan Gana Gueye day dem du nina Leonardo de ko bëgg tout ça c'était des informations même mais les gars duñ ko catu d'une ah, duñ ko mais Idrissa monstrueux monstrueux monstrueux Taï journal l'équipe waxaat nako gis nañ supporters France yi Paris Saint-Germain notamment journaliste yi mais également kii di Poketuno. Pochettino wax Idrissa c'est une machine de guerre madame Idrissa Gana Gueye mom Guntan, et on l'a montré gars clap pour Idrissa Gana respect pour Idrissa Gana chapeau pour Idrissa Gana Moi, moy suñu fierté Taï, bu demi-finale euh, Ligue des champions deuxième fois de manière consécutive muy goulée ci équipe française nga tegale ñaar yoon dem demi-finale Ligue des champions duñ leen ciatu on espère que Paris Saint-Germain dina egg finale Ligue des Champions nek lo xamné dinañ ko comme euh, ni mu et won ak Sadio Mané mais gars c'est deux matchs Idrissa pour moi c'est l'homme du match on a parlé du premier match que Neymar qui plutôt Mbappé lañ homme du match deuxième match bi kii di Neymar lañu jox homme du match mais gaay yi bu ñuy ñaari rencontre yëpp la constance manam ki gëna constance ci équipe bu Paris Saint-Germain bi bokku na ci kii di Idrissa Gana Gueye tay ki nga xamne ne ñëpp moom lañ doon tiit Joshua Kimmich milieu de terrain bi gisul ko gaay def na ay lu nekk mais quand même Idrissa Gana Gueye était présent gis nañu ki nga xamne tamit nak mom moy Alaba mi nga xamne défenseur de football ñu football loo milieu de terrain parce que da koy football ak fi bu Suisse mom moy seen meneur de jeu Idriss Gana Gueye def ko tenir gis nañ commande bi nga xam mom dafa sonaloon Drogba bee pa Drogba euh, bee passé gis nañ ci match bi ki nga xam ne Idrissa Gana Gueye doon ñëw di ko ba tax ki nga xam moy mooy indi wul danger bu bari bi mu doon indi gis nañ ne tamit milieu de terrain bi il a ramassé énormément de ballons énormément de ballons Idriss Ganagay tay ñi ngi wax ñep mais Idriss Ganagay Gueye il a montré encore une fois que gaynde du rëbb di soy Idriss Ganagay aujourd'hui a fait la fierté du football sénégalais gars chapeau ki nga xam moy mooy Pochettino wax nako

en tout cas ñu gis Paris Saint-Germain gagné wala nul waye tamit li ñu mën a wax mooy match Paris Saint-Germain bi tay mo gën sax lañu ñu defoon fa nga xam moy ci Bayern Munich bu fekkee né ñom ñoo gagné mais en matière de possession de balle gis nañ Neymar Di Maria tay tay daw na carrément gars donc beaucoup de respect à ce joueur mais Idrissa Gana gay gars yi Idrissa Gana Idi Gueye tey moment ah, ci wéru koor gi bu démé tay soxna ci nako damp dàmp na ko defal lépp waajal ko defal ko xëdd bu baaxa baax mais en tout cas Idrissa Gana il a été à la hauteur les gars nañ ko nangu nañ ko jox cër nañ ko respecter le gars il mérite le respect de tout un chacun. Idrissa Gana phénoménal gars Oui wuy di abonné wuy leen like ça fait un moment mais xam nga rek nekkoon ci affaire yi di leen waaj affaire on continue à aimer à liker ça se passe ici sur Patriote Inter Dia ngeen jëf le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Ligue des Champions version 2021 di xam kan euh, bientôt gars Dia ngeen respect mais Idrissa Gana non le gars là chapeau